asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM dalee ak jàmm ci seen émission SOS santé biñ leen di dëttal ajuma ju jot lu ko dalee 18h jàpp 19h ajuma ji ñuy dalal euh, Mbengue Niass mu ngi nekk nag euh, koo xamante ne moom moo yor wàllu programme ca fu ñu naan Pipi Global Mbengue Niass ñu ngi lay jaajëfal di la nuyu. Euh, maa ngi leen di nuyu. Euh, di leen sant di leen gërëm ci invitation bi ngeen ma bi ngeen ma invité tey mm-hmm. ci SOS santé. Mm-hmm. di la remercier également ci disponibilité bi voilà nga Niass tey boo ñu doon wax Pipi Global lan nga ñu ci mën a wax. waaw Pipi Global euh, benn organisation la boo xam ne tey am na cent ci àddina bi ak lu ko ëpp sax ñoom nag li leen tax a jóg mooy. Euh, xeex ngir eh, àq ak yelleefu jigéen ñi ak ndaw ñi ci lépp luy seen wér yaram mm-hmm. eh, pipi global nag boobu ba tey eh, dafay mi ngi commencé Amérique Uh, waaye mi ngi commencé ñëw Afrique bi ñu en 1972 uh, particulièrement au Kenya nga xam ne foofu mooy suñu bureau régional Euh, Sénégal nag mi ngi fi ñëw euh, en deux mille quinze euh, ci la ñu commencé ak projet voix pour la santé bi nga xam ne ci la ñu nekk nii tey di xeex lépp luy àq ak yelleefu xale yi ak jigéen ñi euh, ci mbirum santé sexuelle et reproductive. Mhm. voilà di la jaajëfal bu baax nga nekk nag chargé de programme foofu nga xam ne moom mooy ca Pipi Global euh, dafa am nag benn campagne boo xamante ne dangeen ko lancé donc campagne bi dinañ ko tuddee kon aar jigéen mu nekk campagne boo xamante ne fan yi ñu ngi gis visuel yeeg euh, yu demee noonu donc tey lan nga ñu mën a wax ci boobu lépp campagne déjà campagne boobu loolu lan moo tax ngeen am maanaam maanaam mbébétu taxawal ko si période bi ñu toll. waaw euh, wax nga dëgg sax balaa may ñëw ci campagne bi euh, damay wax li jiitu loolu. Mhm. ndax PP euh, Global moom li nga xam ne loolu mooy stratégie mooy bu ñëwee ci ab dëkk du ñëw rek commencer dérouler ay activités moom dafay lëkkaloo ak organisation ak association locale yi. Mhm. ngir doxal liggéeyam. fii ci Sénégal nag Euh, mi ngi lëkkaloo ak ñetti association mhm. bi ci jiitu mooy association des journalistes en santé population et développement mhm. ñoom ñoo porté le volet communication euh, projet bi ñi ngi ci lëkkaloo itamit ak waa association des jeunes avocats du Sénégal ñoom ñoo porté euh, kii bi nu mu tuddati mouvement des jeunes Euh, ci wàllu projet bi ak AGS mooy association des juristes sénégalaises ñi nga xam ne ñoom ñoo porté volet euh, réforme bi mhm. waaw réforme bi nga xam ne ñu ngi ciy ut euh, ñu indi ay coppite ci article trois cent cinq ak trois cent cinq bis ci code pénal bi bi nga xam ne day tere avortement médicalisé te ñun dañu bëgg ñu harmoniser ko ak li nga xam ne loolu mooy article quatorze du protocole de Maputo. Mhm. nga xam ne dafa may jigéen bépp jigéen boo xam ne bu ñu la sàkkoo euh, nga jëlee ci ëmb. Euh, wala ñu nga am inceste nga jëlee ci ëmb loi boobu daf lay may euh, nga tàggalikoo ak moom si jàmm ak salaam te waaw nga mën a avorter. Mhm. te doo ci am euh, problème ak yoon. Mhm. waaw ndax gis nañ ne que fii léegi euh, statistiques yi wane nañ euh, presque plus de cinquante et mille cas yoo xam ne dañu def avortement clandestin te am na ci ñu bëri ñoo xam ne dañ leen ci ay sàkku wala ci inceste lañ ko jëlee lañ ko lañ ko jëlee. Mhm. waaye buñ leen jàppee yoon day dal ci seen kaw. Ah. ñii dañ leen di tëj wala ñu am ci yeneen jafe-jafe daal. Mhm. léegi nag euh, loolu lañ bëgg a xeex fii ci euh, ci Sénégal. Mhm, donc léegi projet bi nag. Mhm. léegi projet bi nag. avortement wàllu avortument médicalisé ba moom moo tax ngeen taxawal projet bi. waaw projet bi voix pour la santé. Euh, bi muy doog a door nag dafa amoon une partie boo xam ne lépp luy aar wér gi yaramu ndaw ñi la. Mm-hmm. mais dernière phase bi nii bi nga xam ne dafa war a jeex en mars deux mille vingt et euh, objectif boobu mooy suñu objectif mooy ñu am loi loi sur l'avortement médicalisé euh, ni ko protocole de Maputo waxee. Mm-hmm. waaw léegi nag projet boobu bi nga xamee ne en mars Covid 19 bi dugg si na. Euh, ñu xool xam ne am na activité yoo xam ne yu bari mënatuñ ko woon doxal ndax confinement bi ak yenn restriction yi ak yenn euh, interdiction voyage yooyu mm-hmm. ñu xool beneen euh, yoon boo xam ne bu ñu fa jaaree dinañ mën a continuer activité yi euh, ndax projet bi li ci des yàggut léegi ci la ñu def benn plan de contingence ñetti partenaires yépp a dajaloo ak pipi global mm-hmm. ñu daal di def benn plan de contingence boo xam ne dañu décider woon ne que activité yépp en digital lay doon loolu moo indi nag euh, campagne ànd aar jigéen ñi bi ngay gis ni bi nga xam ne ñu ngi ko lancé le 17 août 2020 mu war a jeex 19 septembre 2020 donc tey jii projet bi nga xamante ne kon lancé ngeen ko euh, yan mooy activités yi nga xam ne ci ngeen ko fas yéene def ci euh, projet bi nga xam ne moom mooy campagne aar jigéen ñi waaw ànd aar jigéen ñi nag activité yiñ ci yiñ ci prévoir mooy dinañu joxe ay information Mhm. ndax euh, ñëpp xam nañ ne bi Covid bi ñëwee Uh, lu mel ni AGS dañu amoon ay boutique de droit yoo xam ne euh, képp ku daan jànkoonteel ak uh, maanaam mbirum viol ak inceste da nga daan jublu foofu mhm. waaw fa daan fa daan jublu léegi bi Covid bi ñëwee nag boutique yi dafa tëjoon mm léegi ñu am euh, benn numéro vert boo xam ne au lieu nga comme mënatuloo dem ci boutique yi ci numéro vert boobu ngay kii mais information bi il faut ñëpp jot ci. Mhm. léegi ci campagne bi euh, dañu am euh, yéene partager information boobu ndax ñëpp xam ne am na benn numéro vert euh, boo xam ne disponible na. ku am euh, problème wala lépp loo xam ne da nga daan dem ci boutique de droit yi te tëj na nga jaar ci numéro vert boobu pour euh, ñu jël la en charge. Mm-hmm. dina am tamit yeneen euh, activité yoo xam ne activité de sensibilisation la. Mm-hmm. sensibilisation bi nag day jëm ci naka la ñuy prévenir violence yooyu nga xam ne femmes yi ñi ngi koy dund depuis Covid bi ñëwee. Mm-hmm. ndax euh, léeg-léeg nga gis jigéen joo xam ne dalay ne ah man de sama kër neexatul mhm. ndax borom këram liggéeyatul moom tamit mënatul liggéey su ko defee euh, mu indi vraiment jafe-jafe ci kër gi euh, ba indi ay violence léeg tamit ci vidéo yi di nga gis jigéen joo xam ne dana ah moom daal digganteem ak borom këram ñu ngi indi ñaga ñu ngi commencé ñagas depuis bi Covid bi ñëwee léegi sensi euh, activité de sensibilisation yooyu lañ mën a dawal euh, ci campagne bi ba nga xam ne képp ku euh, dégg campagne wala nga gis vidéo yooyu nga mën ko moytu wala nga indi coppite ci sa doxalin ba éviter violence boobu ci biir Covid 19 bi. Mhm. témoignage yooyu dañ ci ànd tamit ak suñuy champion am nañ ay champion yoo xam ne. Euh, c'est des champions parlementaires. Mm. am nañ tamit ay bàjjanu gox yoo xam ne suñuy champion lañ ñooñu nga xam ne ñu ngi jouer ay rôle yu am importance ci communauté yi pour yeete ak euh, sensibiliser aussi ci violence yooyu nga xam ne bu ñu moytuwul mun nañu jural leneen. ñu déglu benn kon témoignage parce que on rappelle que def ngeen ay témoignages yu bëri yoo xamante ne mu ngi am au cours de la campagne donc euh, bu ko defee ñu dellu si waat ci émission bi. Covid bi dañ doon wax couvre-feu bi huit heures da war a ñibbi léegi nag man mu teel naa wàcc sax six heures laa wàcc mais dama taxaw si arrêt bi ba sonn oto bu ñëw dem ba ay sept heures yooyu ma ragal tamit policiers yi kii ma gis benn oto benn waay ma stoppé ko mu daal ñeme foo jëm ma ne ko fii laa jëm HLM boobu man maa ngi jógee biir léegi nag mun ma waaw yéegal lii ci oto bi bu ñu dem bay kii ba génn kii nu mu tuddati pont Colobane rek mu mu mel lu jaat man ko ah sëñ bi ñun HLM laa jëm de mu foncé après ma commencé kii yëngal bunt yi mu jëkk koo tëj ma commencé diit nag paniqué après ma bëgg yuuxu koo xam ne su ma yuuxoon tam kenn du ma dégg daal di jaare oto bi commencé di ma di ma si ginnaaw laa tax laa toogoon toog na sax si kanam daa ragal mu ubbi bunt bi génn dugg foofu heure boobu ñëpp daw nañ ku nekk sa bopp nga tal pour dugg sa si nee na ci la ma commencé di ma di ma di ma di ma laal après muy ma bañ ba sonn mu fexe ba violé ma egg ci man ba mu eggee ci man comme ni ko xamee rek di may yàq violé ma nelawutuma defatu mu moo ko waral

léegi comme que moom da daan xëy di liggéey liggéeyeetu guddi la daan wàcc léegi dañuy obligé man ak moom ñooy yendu ci kër gi ñooy yendu ñooy fanaan ñooy nekk euh, presque euh, journée bi yëpp comme nun naa ko wax waaye dama seetlu depuis loolu ba tey sama jëkkër may ma jàmm waaw ma jàmm du dóor nag duma dóor waaye daal ni may soxlawee moo bëri ndax dafay bëgg chaque jour di di di di ma sàkku dem na sax ba léegi su may togg sax daf may fekk si waañ bi parfois ma ne ko damaa sonn parfois sax ma ne ko damaa gis mbaax waaye du ma gëm day ne da koy xool ba pare ndax dëgg la loolu daal man sonn naa daal sonn naa trop dama gis ni feebar bi daal moo indi lii feebar bi ak ni muy toog ci kër gi chaque jour man début bi sax dama ko doon jéem a comprendre mais affaire bi mi ngi commencé ëpp loxo. te lii tamit yàlla na gaaw jeex bu dee lii la rek yàlla na feebar bi yàlla na fi mbas bi jóge ndax ñun ñëpp ñu dellu suñu jaam. voilà déglu nañu léegi madame ñas benn témoignage donc ci campagne bi mën nga revenir un peu ci euh, naka ngeen recueillir yooyu témoignage ak naka ngeen def ba nit ci nangu donc pour euh, wax seen histoire ak yooyu. waaw euh, comme ni nga ko xamee rek xam nga Sénégal nit ñi sutura ak sakk. Euh, dañ ko euh, dañ dañ ko fonk moo tax euh, comme ni nga wax léeg-léeg bu yomb nit ki nangu ñëw def témoignage mais boo gisee ne que campagne bi nga def sa témoignage dina dimbali ñu saafara jàngoro yi nga xam ne moom la ñuy xeex maanaam violence yi du du jafe léeg-léeg convaincre nit ki mu ñëw témoigner mm-hmm. ndax yeneen moom ci boppam jàngaram dina saafarawu waaye ñeneen euh, moroomu jigéenam ñi nga xam ne ñi ngi dund mu mel noonu wala lu ko raw ñoom tamit di ngeen mën a jàppale ñu génn ci situation boobu ñuy dund waaw approche yooyu daal la ñuy jël euh, pour mën a euh, indi jigéen ji nga xam ne moom dina mën a d'accord ñoo partager expérience Mhm. Euh, def témoignage ci ci ci gis nañu ne seen principal kanaal fu mu toll nii mu ngi nekk réseau sociaux yi ndax euh, yaa ngi koy wax sa biir wax daje fu mu toll nii doon na loo xam ne lu jafe la bu njëkkoon dañuy gis ne campagne yi yu mel ni yu xeetoo ni buñ ko doon def day nekk ay genre VAD ay causeries ay campagne de euh, interpersonnel ay communication interpersonnelle yoo xam ne dafay faral di am communication de groupe mais gis nañu ne bii yoon réseaux sociaux yi daal ci ngeen gën a accentué wu waaw euh, réseaux sociaux yi ci la ñuy accentuer wu mooy comme ni nga ko waxee rek ndaje fu nekk nii dafa jafe lool euh, te dañu gis ne léegi ñëpp dañuy utiliser réseaux sociaux yi. Mm. muy ndaw ñi muy mag ñi muy góor muy jigéen ñëpp actuellement ni koo ci gis la majeure partie ñëpp ñi ngi ci Facebook ñii ñii ñi ngi ci Twitter ñii ñi ngi ci ay Instagram donc ñu am yaakaar ne bu ñu jaaree foofu. ak jafe-jafe yi ñi nga am yi nga xam ne pour ndaje pour ndaje la euh, réseaux sociaux yi moom moo ñu mën a dimbali ñu atteindre cible yi nga xam ne moom la ñu bëgg a atteindre. am na ay coins yoo xam ne tamit yenn localité yi naam sax ni tey ñu bëri dañuy utiliser internet mais am na ay localité yoo xam ne ba léegi euh, ngir am accès bi foofu dafay nekk lu du jàppandi daal wala peut-être femmes yi fay nekk du ñu am benn euh, information wala benn euh, daal tàggat boo na tàggat nañ leen ci mbir yi te nan ngeen fas yéene def ak euh, cible yu mel noonu. waa cible yu mel noonu de yàlla dogal na ne dañuy liggéey ak AGSPD ñi nga xam ne mooy association des des journalistes en santé population. Mhm. et développement ñoom dañu am ay bànqaas euh, ci quatorze régions yi. Mhm. ak ci différentes communes de ces régions. donc ñoom seen relais yi nekk foofu liggéey bi nga xam ne ñun moom la ñuy def fii au niveau national ñoom ñoo ñu koy jottalil ndax boo déggee ñu naan euh, campagne ànd aar jigéen ñi du ñi nga xam ne rek dañu mën a nekk ci réseaux sociaux yi Euh, pour mën a interagir. Mhm. waaye ak seen rajo communautaire yi wala seen élément yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo leen di représenté ci région yi ñooñu dinañ def liggéey bi ba mën a jottalee message yi. Mhm. Mhm. am na solo donc tey jii ni campagne mu war a durer yaa ngi koy wax sànq euh, nga ñëwaat si ñaata temps. Euh, un mois la war a durer mois la war a durer. Mm-hmm. d'accord mais gis nañu ne au la de ça euh, bu weesoo violence conjugale yi ngeen di wax ak yenn violence yi nga xam ne jigéen ñi dañuy am dañ leen koy teg yenn saay ci jamonoy Covid bi aussi gis nañu ne dafa am impact bu rëy boo xam ne am na ko aussi ci sax yenn saay yenn accès soins yi. parce que am na benn rapport bu may lii rek tey ci suba ñu ciy wax que ne même fum mu pour jot ci yenn méthode contraceptive yi wala jot ci yenn mbir yoo xam ne daal euh, nit ki da koy soxla euh, day nekk lu jafe muy ci jigéen ñi mag ñi muy ci ndaw yi également. waaw loolu dëgg la euh, ndax accès aux soins déjà dafa nekkoon tuuti problème même avant Covid bi di ñëw. Mhm. léegi Covid bi ñëw nag gën ko yokk. waaye boobu ba léegi euh, acteurs yi nga xam ne ñi ngi intervenir ci domaine bi ñi ngi xool naka la ñuy mën a defee seen kemtalaay kàttan ànd ci ak gouvernement bi euh, ñu fexe ba euh, service yooyu jigéen ñi di soxla même bu fekkee ne période Covid bi la ñu mën ci jot. Mm-hmm. am na sax ay jéego yoo xam ne ministère de la santé mi ngi ko ciy jéem a def pour yombalal leen ko. mi ngi mel ni lu ñuy wax auto soin ndax am na benn euh, méthode de contraception boo xam ne ñu koy wax euh, sayana euh, dafa am léegi produit bi yow ci sa bopp jigéen gi mën nga ko defal sa bopp. Mm-hmm. léegi loolu kii injection la. Mm-hmm. mooy mi ngi mel ni comme insuline bi rek. Mm-hmm. ni nga koy ni ni nga koy injecté. Euh, xam naa ne nag ni ma koy waxee nii. Mhm. bu doon euh, professionnel de santé. Mhm. ci lay gën a neex a expliquer. Mhm. waaye daal genre boobu noonu lay demee nga xam ne sayana presse bi. Euh, dina di jigéen gi nga xam ne soxla na ko dina ko mën a defal boppam mooy auto soin bi nga xam ne moom la ñuy bëgg a promouvoir ndax gis nañ ne que jamono ji loolu dina leen ko mën a yombalal bu baax ak yeneen yeneen ak service yoo xam ne bu jigéen gi soxlaa ci campagne bi aussi dinañ leen euh, jox ay information partage ay information yoo xam ne euh, liñ ci soxla dinañ la woon yoon bi nga xam ne boo fa jaaree di nga mun ci jot te doo ci am jafe-jafe. Mhm. te jamono ji tamit euh, nekk na jamono jox na ñu bëri dañuy ragal aussi pour di jege structure de santé yi ndax feebar bi loolu tamit mu nekk beneen jafe-jafe ci yéen ak programme yi nga xam ne yéen ngi koy dérouler. waaw loolu tamit euh, dëgg la mais loolu li ñu ñu ngi koy euh, ñun ñu ngi da véhiculer suñu communication euh, plus ci ci structure de santé yi maanaam lu Covid bi nekk ci dëkk bi nañu fexe ba nga xam ne soin yooyu ñu disponible ci ci ci population bi. Mm-hmm. ndax comme ni nga ko waxee jamono ji bi mbas mi ñëwee ba léegi. ñu bëri dañuy xalaat ne xëy na dem fa mën nga ko fa jëlee boo ñëwee wàll ko say waa kër wala say ñoñ donc dañuy préférer toog te loolu nag mooy indi euh, jafe-jafe yi ndax euh, ñu bëri tey jii nii xëy na ci ci Covid bi ñàkk dem euh, renouveler seen seen méthode de contraception indil na leen ñu am ëmb boo xam ne mën na leen indil gàllankoor Euh, ba euh, mu mu gën a yokk nag lim bi nga xam ne ñu bëri ñu ngi ci doon loru daal. Mhm. waaw. Mhm. Euh, te sax am na tam beneen rapport boo xam ne tey wane nañ ko ci journaux yi di wax cas de grosse grossesse précoce yi aussi dafa yokk bu baax ci li nga xam ne moom mooy maanaam Covid 19 bi loolu tamit nekk na cas aussi boo xam ne set seetlu nañ ko daal tamit. waaw loolu la tamit mooy comme li ma la expliqué sànq rek. xam nga ñàkk am accès au soins loolu mooy lii yëpp conséquences yi la loolu moo tax nag campagne ànd aar jigéen ñi dafa jóg xam ne war nañu euh, partager yenn information yi pour ñi nga xam ne euh, te nañoo jot ci soins yooyu wala te nañoo jóg dem ci structure de santé yi ñu xam yoon bi ñu war a jaar ñi nga xam ne aussi dañuy jànkonteel ak euh, viol Euh, pendant la pandémie wala ci yenn euh, inceste yi ñu mën leen won yoon bi nga xam ne partager ay information ak ñoom pour ñu won leen yoon bi ñu war a jaar ngir euh, saafara seen jàngoro ndax commune kii bi communication bi ànd aar jigéen bi loolu moo ko tax a jóg. Mm-hmm. Mm-hmm. tey campagne bi mu ngi tourner autour des femme ànd aar jigéen yi. te gis uh-huh. nañu ne aussi euh, jigéen boo ci gis tey lu ci bëri am na góor boo xamante ne euh, ci responsabilité am la nekk mooy maanaam couple yi ñi nga xam ne danoo nekk ay femmes mariées te lu ci bëri aussi bokk na ci ñoo xam ne aussi seen jëkkër yooyu sax ñoo leen di teg métit yooyu ñuy jànkonteel donc tey est-ce que euh, quel est le niveau d'implication des hommes ci seen campagne bi ngeen di amal. waaw ànd ak jigéen ñi boo gisee turu campagne bi sax. Euh, mooy wane ne ñëpp a ci war a jàpp. Mm-hmm. dëgg la ne jigéen gi moo gën a vulnérable mais ki nga xam ne mooy exercer violence bi lu ci ëpp euh, ku góor ki la. Mm-hmm. donc ànd ak jigéen ñi loolu mooy loolu mooy euh, concept bi. Mm-hmm. maanaam ñëpp ci war a jàpp. moo tax ñuy véhiculer sensibilisation bi ci góor ñi mais aussi ci jigéen ñi. waaw sensibilisation bi sous toutes euh, sous toutes ses formes mm-hmm. euh, disons violence bi sous toutes ses formes mm-hmm. euh, parce que am na violence yooyu yoo xam ne jigéen ñi góor ñi ñoo koy exercer ci jigéen ñi mm-hmm. mais am na violence violence yoo xam ne comme ni ma la wax sànq mooy euh, jigéen gi dootul mënati jouir de ses droit en matière de santé sexuelle et reproductive ba war a mën a am soin bi saa yu ko soxlaa mm. wala mu war a mën a am dimbal saa yu ko soxlaa ak yooyu donc ànd aar jigéen ñi du dëgg la ne jigéen ñi la ñuy aar mais muy góor muy jigéen ñépp ci war a jàpp mm-hmm. Euh, campagne bi mu ngi war a durer un mois euh, tey lan mooy les différentes phases parce que un mois gudd na guddul euh, donc diir bu gàtt la lan mooy nekk plan bi plan de plan de communication bi ci diiru un mois boobu. waaw ci diiru un mois bi hmm. uh-huh, ci diiru un mois bi nag ñun dañ ci amoon trois objectifs hmm. léegi premier objectif bi première phase bi dañ koy jagleel sensibilisation yi ak partage d'information yi waaw Mm-hmm. deuxième phase bi euh, ñi ngi koy jagleel euh, lépp li nga xam ne mooy euh, accès au à la santé sexuelle et reproductive des femmes ñu fexe ba nga xam ne dina nekk lu essentiel même pendant la pandémie maanaam ñu jéem ko doxal ni mu waree ba jigéen gu ko soxla mën ci jot même bu fekkee ne pandémie baa ngi fi. Mhm. deux troisième objectif nag euh, mi ngi euh, viser euh, débat bi nga xam ne plaidoyer bi daf ko commencé woon ngir ñu indi coppite ci loi bi nga xam ne dafa interdire avortement médicalisé ñu mën ko yombalal ñi nga xam ne wala ñu autoriser leen ko sax laay wax ñi nga xam ne. Euh, dañu euh, dañu jëlee ëmb ci viol wala ci inceste mm-hmm. troisième objectif bi nag loolu la mm-hmm. xam naa ne dañuy continuer débat bi Mm-hmm. ci euh, ci ci ci sur euh, la nécessité de faire passer la loi sur l'avortement médicalisé. Mm-hmm. Mm-hmm. may fàttali rek mbokk yi a ngi déglu seen émission SOS santé tey ñuy dalal Mingué Niass nekk euh, chargé de programme fële nga xam ne moom mooy ci pipi global kon bi nga xam ne moom mooy ànd aar jigéen ñi te ñu daal di koy lancé bu yàggul dara maa ngi ko doon wax ci ndoxteelu émission bi yéen a ngi gis fan yëpp visuel yi ci kon Facebook. Facebook beeg ci WhatsApp beeg ci yeneen i euh, plateforme euh, tey ji avortement médicalisé bi yaa ngi koy wax sànq donc euh, bokk na ci seen ponc yi nga xam ponk yi nga xamante ne soxal na leen ngir campagne bi mais gis nañ ne avortement médicalisé bi def nañ ci man mi fekkee naa ci ay ateliers yu bëri yoo xam ne sensibiliser nañ ci journalistes yi sensibiliser ci yeneen i pàcc nañ ba léegi daal mu ngi bloqué est-ce que yaa fan ngeen yaakaar ne tey blocage bi foofu la mais également est-ce que yaakaar nga ne tey ak campagne bi mbir yi dina jëmale dina dina am coppite parce que dafa mel ni daal euh, réticence dafa am ci mbir mi bu baax. waaw euh, réticence de euh, dëgg la walla ñu ne blocage léeg-léeg ñu gis ko ci waaye fan yi ñu génn nii dañu am benn saytu bu ñu defoon ñu gis ne bu dee côté institutionnel. Euh, loi bi wala convention bi nga xam ne euh, état bi signé na ko euh, war na mën a may ñu changer loi boobu Euh, juste que mettre ko en relation ak article quatorze article quatorze du protocole de Maputo. waaye blocage yi ñuy gën a gis nag mooy blocage socioculturel et religieuse. Mm te loolu ñun indi nañ ci ay ab liggéey boo xam ne euh, muy côté santé muy côté religieux euh, muy côté juridique dañu am ay argumentaire maanaam ñi ngi lëkkaloo ak ay euh, champion religieux yoo xam ne def nañ ay argumentaire yu dëgër sukkandikoo ci ay tex yu leer yoo xam ne ci Coran bi ñi ngi wone fan nga xam ne euh, avortement boobu euh, war na mën a nekk euh, surtout en cas de viol et d'inceste mm. bu dee côté domaine santé aussi am nañ ay argumentaire yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéeyu wérgi yaram bi santé bi ñoom ñoo ko développé ngir indi ay leeral ci nécessité am avortement médicalisé boobu li des nag mooy population bi ñu am information bi ñu comprendre lan moo tax a jóg euh, xeex boobu ñuy xeex pour am avortement médicalisé ndax euh, dinay am ay rumeur wala dinay am ay manque de compréhension yaakaar ne ku ñun dañuy xeex pour ku jóg rek war a mën a avorter déedéet. Mm. loolu taxu ko jóg. loi bi loolu taxu ko jóg bu boobaa am na ay yeneen phase de campagne de communication yoo xam ne dinañ continuer di ko dérouler euh, dëgg la ne ànd aar jigéen ñi la ñu commencé mais dinañu gën a mën a partager information yi dinañu gën a mën a communiquer ak population yi ak communauté yi ngir ñu mën a comprendre bu baax euh, loi bi nga xam ne moom lañ bëgg a indi pour avortement médicaliser ne que du pour déperdition. Mm-hmm. Euh, du pour yàq xale lu réew mi. mais dañ ko indi juste pour ñi nga xam ne dañu am dañu subir viol wala inceste. Mhm. ndax euh, dafa am yenn léeg-léeg yenn incompréhension yi nga xam ne. Euh, ci argumentaire yooyu ñu indi moom moo ñu mën a jàppale pour ñu éclaircir les choses ak population bi aussi mën a adhérer à la cause. Mhm. parce que tey jii nii boo gisee euh, ñenn ñi di di bañ yaa ngi koy wax léegi mooy dañuy bañ peut-être tey koo xamante ne da nga am ëmb nga ñëw wékk ko ci viol mm, pour juste maanaam mën a jot ci. avortement bi fekk na demeewul noonu mais ci avortement médicalisé bi dafa am ci lu mu tegu bëri na tey ay phase yoo xamante ne nit ki balaa ñu koy permettre sax mu avorter ci phase yooyu dina ci jaar am na ay médecins yu ko war a attester ak yooyu donc je pense que tey euh, loolu la euh, maanaam ñi yor programme yi gën a war a mën a accentuer euh, communication bi pour nit ñi mën a comprendre. waaw effectivement gis nga ni nga ko waxee noonu. Mhm. noonu sax la demee. gis nga du jóg même bu ñu fekkoon ne tey voté nañ loi bi itamit du ku jóg rek même bu fekkee ne da nga jëlee ëmb ci ab viol itamit doo jóg rek nga ne xaaral ma dem avorté ji noonu dafa am procédure boo war a suivre da nga war a njëkk a dem euh, à à l'hôpital wala ci structure de santé ñu constaté euh, defal la certificat médical bi nga xam ne loolu mooy vole ne viol la te jëlee nga ci ëmb te boobu ba tey médecin bi ci boppam mënul jël décider ne daf lay defal avortement loolu euh, loi bi moom moo koy décider te loolu yëpp ay procédure ak étape yoo war a suivre la ba keroog nga ci war a dem waaw te aussi euh, bi ñuy tracé euh, procédure bi jël nañ en compte période bi nga xam ne waruloo ko dépasser pour def avortement bi donc lépp dañ ko réguler organiser ko de telle sort que Euh, am na yoon ak procédure boo war a jaar pour mën ci yegg du ko jóg rek ne mar naa ko mën a def ndax loi bi may na ma ko déedéet. Mhm. Euh, te de dañu gis ne euh, nit ñi avortement médicalisé ou pas avortement mu ngi am loolu moom secret de polichinelle la donc mu ngi am de manière clandestine muy am de manière boo xamante ne aussi jigéen ñi dañ ci ñàkk seen bakkan avec tous les risques cela que cela comporte tey aussi est-ce que am na ay chiffres peut-être yoo xam ne am ngeen ko ci loolu pour ñuy def avortement yi façon yooyu noonu bu ko defee daal ñu gën a mën a xam am porté wu combat bi. waaw dëgg la ne avortement bi même bu fekkee ne légaliser wuñ ko mi ngi am avortement clandestin loolu mooy nag man li may woowee le drame silencier mhm. ndax tey jii nii euh, dama yaakaar ne bu ñu euh, euh, bu ñu voté woon loi boobu sur l' avortement médicalisé dina wàññi lu bari bari bari avortement clandestin bi nga xam ne moom moo gën a yokk bokk na ci li yokk euh, les décès maternels mm -hmm. bokk na tamit li yokk infanticide bokk na tamit li yokk jigéen ñi nga xam ne ñi ngi leen euh, denc ci euh, ci kaso yi euh, ndax dañu def avortement wala dañu def infanticide donc pour man lépp li nga xam ne vraiment mooy faire passer cette loi Euh, war nañ ci taxaw bu baax pour euh, lutter contre ces décès maternels euh, mais aussi lutter ak ce qu'on appelle le triangle de feu prison beeg décès maternel beeg infanticide bi et tout ça te itamit man dama jàpp ne loi bi ubbiwul réforme de loi bi ubbiwul kër ñëpp mën ci jot. Mm-hmm. restriction bi mi ngi fi mais dañu war a indi précision ne que c'est spécifiquement ñi nga xam ne euh, avortement ñi nga xam ne euh, viol la inceste la wala quand la santé de la mère et de l'enfant et menacée. loolu lu am lu am solo la. Mm. Euh, tey jii nii est-ce que tamit parce que parlementaires yi ci ñoom la loi bi war a jaar. est-ce que tey ñoom impliqué ngeen leen ci ci lutte bi est-ce que dugal ngeen ci seen loxo bu ko defee ñoom itamit ngeen sensibiliser leen ci. waaw parlementaires yi ñu ngi ci bu baax a baax ñu ngi ci bu baax a baax tey jii nii mën nañ jàpp ne euh, ci projet bi ñi ngi liggéey ak vingt cinq champions parlementaires ñi nga xam ne ñi ngi soutenir plaidoyer bi. waaw ñu ngi soutenir plaidoyer bi ñoom aussi euh, seen rôle mooy euh, sensibiliser leur père au niveau de l'Assemblée nationale pour que bés bu loi bi ñëwee euh, mu mu neex a comprendre mais aussi ñu mun ko soutenir pour pour faire passer cette loi à l'Assemblée nationale. voilà ci ci avortement médicalisé bi tey peut-être am na beneen aspect boo xam ne. je pense que ni c'est important bu weesoo tey santé ku jigéen gi mais xale bi nga xamante ne dafa juddu ci ci viol wala ci inceste xale boobu après dafa am ay répercussions yu bëri yoo xam dina am ci moom euh, socialement psychologiquement je pense que foofu tamit communication war na di gën a porter ci ci côté boobu. waaw euh, xam nga loolu moo tax rek xeex bi jóg. Mhm. loolu moo tax euh, ñu bëgg loi boobu passé ndax xale bi. bi nga xam ne dafa judd ci viol kooku dundam dafa nar a metti mhm. te yaakaar naa ne uh, kenn ñaanul yàlla di juddu ba bi ngay uh, génn àddina nga am benn poids pesanteur boo xam ne dafay nekk ci yow ngay ànd ak moom sa giiru dund mhm. waaw mm ngay ànd ak moom sa giiru dund liñ ci mën a euh, gis daal mooy euh, xale bi nga xam ne dafa judd ci viol nga xam ne du xam kuy pàppaam xale bi nga xam ne dafa judd ci inceste mm. mu xam ne man sama yaay ñoo bokk pàpp wala sama freeru yaay mooy sama pàpp loolu nit ki dina jafe lool mm-hmm. nga mën a am dund euh, bu normal wala dund boo xam ne da ngay nuroog ñëpp mhm. pour mën a épanouir jusqu'à jusqu'à la fin de ta vie mm, parce que pesanteur boobu daal ak jafe-jafe yooyu mm. euh, yaakaar naa ne dina métti lool nga mën ko imposer nit ki mu mën a continuer nag moom du giiru dundam mhm. Mhm. parce que tey médicalement sax euh, ci ci insest tey xale bi côté santé sax mun na am ay gàllankoor yoo xam ne mun na ko am aussi waaw loolu moom c'est c'est vérifié. Mm. léeg da ngay gis euh, ñi nga xam ne xale yi nga xam ne dañuy judd ci inceste. Mm. Euh, toujours day am ay malformation yoo xam ne dañuy àndaale ak moom. donc loolu aussi yaa ngi indil xale bi jafe-jafe boo xam ne mal formation boobu mu mun ko mu nar ko euh, euh, supporter giiru dundam loolu aussi suñ ko mënee éviter ñu éviter ko moo gën. Mm-hmm. yaa ngi tudd sànq bàjjenu bàjjenu gox yi je pense que ñoom fu mu toll nii ci lutte euh, communautaire kenn mënatu leen cee beddi parce que dañ ci am solo bu baax yaa ngi wax ne ñoom impliqué ngeen leen bu baax ñoom sur le terrain je pense ci la ñuy def ñoom seen seen liggéey. en quoi consiste ñoom fu mu toll nii seen liggéey ci campagne ànd aar jigéen bi. waaw seen seen seen seen rôle rôle lu bàjjenu gox bi ci euh, ci campagne bi mooy euh, sensibilisation bi d'abord euh, sensibilisation bi partager information yi au niveau des communauté mais aussi euh, dimbali ak jàppale ñi nga xam ne dañu victime de viol wala d'inceste ci communauté yi ñuy euh, yi ñuy yi ñuy liggéey wala yi ñuy intervenir ñu mën leen jaarale ci yoon bi nga xam ne foofu buñ fa jaaree ñu mën leen jël en charge ñoom nag ñi ngi dox euh, ñi ngi def rôle bu am importance ci communauté yi ndax elles sont très bien écoutées mais mais aussi am na yu bëri yoo xam ne euh, ñoom di dañ ci indi seen dañ ci euh, dox seen rôle bu baax a baax a baax mm. waaw sensibilisation boobu daal euh, au niveau des des communautés mais aussi jàppale famille yi nga xam ne famille de victimes yi nga xam ne dañu jóge ci viol wala ci ci inceste également. Mm-hmm. tey est-ce que au niveau des autorités am na ñoo xamante ne peut-être liyeewu ngeen ak ñoom porter. portendoo le combat bi je veux le combat je veux parler par exemple de la première dame parce que lu mel ni euh, genre première dame bi loolu day nekk loo xam ne da koy interpeller au premier plan campagne yu mel nii waaw waaw euh, campagne bi nag euh, en fait pour cette première phase mm-hmm. euh, ama ciblé ciblé guñu peut-être à ce haut niveau là mm-hmm. mais am nañu yeneen stratégie yoo xam ne à l'avenir dinañ xool naka lañuy ñuy impliquer le plus haut niveau d' accord parce que dina ci am mhm. solo loolu bu baax. waaw waaw effectivement. Mhm. effectivement. voilà euh, ba tey rek mbokk yéen a ngi déglu seen émission SOS santé tey ñu dalal euh, Mingué ñas nekk chargé de programme euh, fële nga xam ne moom kon ca PPI Global wax nga ko léegi ci tamit journaliste yi taskatu xibaar yi fu ci mel ni réseau. donc AGSPD association des journalistes en santé population et développement wax ngeen ni seen partenaire lañ également foo xamante ne peut-être yéen du ngeen fa mën a egg les émissions ak ak yooyu yaa ngi wax léegi que ne seen i partenaire lañu waaw euh, association des euh, journalistes en santé population et développement euh, ñoom ñoo ñoom ñoo ngànk lépp li nga xam ne mooy communication euh, projet bi Euh, ñoom ñooy diriger aussi campagne yi nga xam ne moom lañu ñu euh, war a doxal ci euh, ci projet bi te yàlla dogal na ne am nañ seeni antenne au niveau des régions ñi nga xam ne ñoom ñoo mën a amplifier les messages jottali messages yi ñi nga xam ne xëy na sudul réseaux sociaux yi ils seront laissés en rade ñu mun a yekkale euh, message yi foofu euh, dama bëggoon aussi indi précision rek ci euh, rôle bàjjenu gox yi tamit mhm. ndax bàjjenu gox yi dañu am ay champion bàjjenu gox du du Dakar rek ki mhm. Sénégal am nañ yeneen région yi nga xam ne am nañ fa ay champion bàjjenu gox ñoom tamit rôle bi nga xam ne moom la bàjjanu gox yi di jouer fii ñoom tamit moom la ñuy euh, décentraliser au niveau régional ba ñoom tamit ñu mun a jot cible yi nga xam ne euh, comme ni ma ko waxee euh, nekkuñu ci réseaux sociaux yi wala mënuñu nekkuñu sur Facebook Instagram wala Twitter bàjjanu gox yooyu tam ñi ngi jouer ay rôle yu am importance ci communauté yi nekk foofu ci au niveau des régions. am am na solo bàjjenu gox yi ñoom vraiment ñu ngi jouer aussi rôle bu. boo xam ne c'est très important par rapport ak euh, tey jii bu ñu mënee egg ci yenn niveau yi ci wàllu planification familiale ak yooyu tey c'est grâce ak ñoom ak yeneen ak yeneen voilà ñu nekk ci période nag pandémie lépp fu toll nii dafa jaxasoo euh, ci wàllu peut-être ressources yi jigéen ñi daan am yooyu yëpp dafa wàññeeku bu baax euh, tey jii ci côté boobu tamit lan moo ci seeni i gis-gis ak lan moo ci aussi seen i seen rôle également pour un peu jàppale jigéen ñi ci ci côté boobu parce que tey peut-être balaa ngaa xalaat sax yenn euh, accès ci yenn yi wala nga mën a mën a jënd connexion sax pour mën a connecté wu gis vidéo ak yooyu day fekk peut-être sa temps may la ko wala say revenu may la ko. dëgg la ne euh, période euh, Covid bi dafa gën a méttil koom bi. Mm-hmm. ba jigéen ñi nga xam ne am na ci jigéen ñu bari ñoo xam ne la ñu daan mën mënatuñu ko wala li ñu daan amatuñu ko. Euh, ñun nag ci domaine bi ñu intervenir nii euh, ak suñu partenaires yi ñuy liggéeyal euh, jàppale nañ leen ci euh, matériel de protection ak produit de protection yi maanaam lépp luy ay alcool gel masque et tout ça euh, am nañ ci loobu am importance boo xam ne euh, jàppale nañ ci sunu ñetti partenaires yooyu mm. waaye li ma gis bi tamit mooy partenaires yi ñoom ci seen bopp dañu jël seen initiative bu bopp di jàppale communauté yi ak famille yi Euh, ci lépp luy ay dund ak yooyu ndax gis naa AGS mhm. euh, association des juristes sénégalaises ñoom aussi côté boobu def nañ ci euh, jéego yu baree baree baree bare yoo xam ne indi nañ ay ndimbal ci seen doole bopp nag ak xëy na yeneen partenaires yu ñu àndal mhm. ñu def ay dons jox ko famille de victimes yi ak euh, jox ko xëy na population vulnérable yi nga xam ne soxla nañ ko. Mhm. gis naa ne loolu ñoom euh, jéego yooyu vraiment ñu ngi koy def ndax kenn ku ci nekk daal ci euh, sa côté yaa ngi jéem a xool naka ngay mën a dimbalee Euh, euh, yenn communauté vulnérable yi wala jigéen ñi nga xam ne dañoo xaw am jafe-jafe ci Covid bi pour euh, xaw leen génne ci ci yenn situation yi. Mhm. aussi loi ci viole ak pédophilie am na ci Sénégal donc yéen loolu dina leen faciliter faciliter normalement seen xeex wala naka ngeen apprécier boobu loi et ndax am na loo xamante ne changé na ko ci peut-être seen lutte bi ngeen doon amal boobu léegi. Euh, par rapport ak euh, jigéen yi protection jigéen yi waaw loi boobu de wax dëgg yàlla pour ñun euh, dafa nekk victoire ndax su surtout bu ñu ko appliquer nag waaw loolu mooy poser problème nag waaw surtout bu ñu ko appliquer bu fekkee ne appliqué nañ ko wax dëgg yàlla pour ñun c'est une première victoire ndax bu ñu bu ñu demee ba criminaliser le le viol euh, loolu mooy euh, képp koo xam ne euh, sa xel dem na ci nga def ko boo xalaatee daan yàlla kay fekk di nga reculer waat bu baax waaye nag comme li ma wax défi bi mooy application bi bés buñ ko appliquer mën naa ne ñun une grande partie de notre de notre lutte Euh, réglé nañ ko. c'est important li des am ne un ci ci ci bi. li des ci émission bi bariwul. Euh, dañ lay may peut-être nga revenir aat ci campagne bi comme ça bu ko defee ñu mën a tëj émission bi nga rappelé waat campagne bi. pour peut-être euh, koo xamante ne jël nga émission bi en cours jotoo dégg exactement campagne bi et tout voilà. waaw maa ngi maa maa ngi maa ngi uh, lancé waat un appel uh, ngir vraiment ñëpp jàpp ci campagne bi amplifier message yi aimer suñu page Facebook Voix pour la santé commenter aussi uh, suñu publication yi nga xam ne ñi ngi koy def euh, ci campagne ànd aar jigéen ñi bi nga xam ne commencé nañ ko le 17 août mu war a jeex le 19 septembre di rappeler waat rek ne campagne bi li ko tax a mooy euh, sensibiliser sur les violences faites aux femmes euh, fexe ba nga xam ne jigéen ñi euh, ak ndaw ñi ñu mën a am accès aux services même pendant la pandémie waaye également ñu continuer indi ay xalaat ak ay contribution ngir euh, loi sur l'avortement médicalisé ñu mën ko voter en cas de viol et d'inceste comme le protocole de Maputo ni mu ko waxee ci article quatorze bi waaw yegg si nañu si njeexitalu émission bi ñu may la kon euh, Mingue ñas nga tàggatoo ak mbokki auditeurs yi waaw maa ngi sant euh, ñëpp di di leen gërëm yéen itamit réew mi FM di euh, ñaaxaat encore euh, ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi déglu SOS santé vraiment ñu mën a participer activement ci campagne bi ngir ñu mën a amplifier message yi ak atteindre tamit suñu objectif u an campagne ànd ak ñetti objectif yi ma wax mhm. di la jaajëfal également bu baax encore une fois Mbengue Niass may fàttali ne yaa ngi nekk chargé de programme ci kon euh, Pipi Global te ñu doon waxtaanee campagne de communication bi ngeen xam ne euh, tàmbali ngeen ko mu war a am ci diiru benn weer di campagne bi ñu duppee ànd aar jigéen ñi donc ñu amoon mbégte bu baax di ci waxtaan ak yow euh, tey jii di jaajëfal kon auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñu doon déglu ci Rewmi FM 97.5. matu Diallo moo nekkoon ci kàddu gi mais may fàttali ni émission bi mën ngeen ko déglu ni ki euh, kon 18 euh, heures jàpp 19 heures lay am ajjuma euh, ju jot mun ngeen ko dégluwaat itamit ci suñu chaîne YouTube mi officiel ngeen jaaree ko point point réew mi www.rewmi.com kon di wax rek auditeurs yi jëri ngeen jëf